léegi nag net net net heure benn laay ñëw pour reer si net. ay vingt heures vingt et une heures. baax na loolu guddi la. ay konkoron nga bëgg a ñëw. kon ko def dix huit heures. dix huit la. dix huit may sax sangu cëpp cëppal maquillage def samay xam nga. def samay salam salam nar na waat nag nar na ma agressé waat nag. <laughs> def ci quelque faire. dégg dégg eh boobu ma daan eh baax na kay def. on a tout à l'heure. tout à l'heure. shoot them. Eh, eh, <laughs>